mbokk yi seetaan euh, Louga TV ñu ngi leen di nuyu rafetlu bu baax ni ngeen euh, ak ñun euh, di Alarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum deux mille lool di leen présenter seen émission bi ngeen di faral di am ci muy émission politique àllarba bu jot xam ngeen ni dañuy wut gan dalal ko ginnaaw dimanche bi nga xamante ni dañuy def plateau. boo xam dañuy woo ay euh, ndawi politique ñu waxtaan tey nag ñu ak euh, contentement di dalal euh, président Uqa di responsable politique parti démocratique sénégalais nekkit membre comité directeur bu PDS di membre commission nationale bu vente des cartes fii ci bah, commission nationale bi manam fii ci ci nationalement en tout cas bokk na ci membre yi nga xamante ñom lañu choisir pour njaayam carte parti démocratique sénégalais yi motax tay di jii lañu la am euh, dalal ko ci Louga TV c'est vrai que dafa dafa dafa bokk ci ci ci gi à chaque fois euh, mi ngi mi ngi suivre télévision euh, lougatoise bi di Louga TV moo tax tey jii ñu am mbégte en tout cas recevoir ko président ñi ngi lay nuyu dina dalal fi nga xamanteni euh moy di Louga TV première chaîne digitale fi ci Louga. bismillaahi mina seytaani rajiim di jee maa ngi lay gërëm bu baax di la sante mm-hmm. di nuyu ñep di nuyu wa Louga di sante borom kër gi di ñaan lépp luñ fi wax rek yalla na doon. ndimbal di doon lu jariñ askan wi. Mhm. waaw voilà euh, président justement xam naa ne yow kenn mënu laa woota euh, wax ci politique danañ waxtaan ci politique waxtaan également ci euh, sa yëngu-yëngu ca ca ca diaspora ba. justement par parti démocratique sénégalais jamono yii xam naa ne dama lay cokkaas tuuti structuration bi moom amul parti démocratique sénégalais moom jamono yii kenn ku nekk lu la neex def la waaye lépp sotti ci biir parti bi mën nga ñu expliquer lan moo waral loolu. waaw xam nga parti buy doog a euh, bu bu nekkoon ci pouvoir ba jóge ci. Mhm. pour ñu structuré waat parti bi du yombe noonu. Mhm. moo taxoon mu amoon ay problème parce que opposition moom dafa metti kooku def naa ni ñëpp xam nañ ko. Mhm. léegi nag euh, bi ñuy doog a wàcc daanu jë ñàkk pouvoir bi euh, ñu bari dem. ci Louga surtout ñi nga xam ne xamoon nañ ñi fi nekkoon cadre yëpp dem. amoon na ay ay ay yëngu mais bu ñu xoolee. Euh, pour euh, puissance bi PDS am ci électorat yi fi jaar yëpp dañuy wane ni ba léegi moom mi ngi Louga. Louga moom ba léegi am na ay PDS yu taxaw. Mhm. waaw mais kenn xamul kan mooy kan. waaw loolu li ko waral mooy xam nga parti bu fekkente ni dañ ko renouveler woon je crois bu ma juumul dans les années 2000 début 2000 2000 2008 ou je euh, sais plus ñu renouveler ko. Mhm. bi ñu ko renouveler ñëpp dem. Mhm. après bi ñu daanoo ñi fi nekkoon presque ñëpp dem nañ lu ngeen xam la yépp euh, bi euh, loolu nag day tax amuñu waat bureau ñi fi nekkoon tout le temps ñenn ñi ñi ngi légitimer seen bopp ñenn ñi ñi fi nekk ñëpp daal ñu bees lañ pratiquement am nañu fi nekkoon mais yëruñu woon ndombal tànk te renouveler guñ parti bi fii ak renouveler wuñ nag kenn ku ne tu peux dire n'importe quoi man nga woote lu la neex ni moom nga mais bis buñ jaayee carte rek rek je crois que lépp dina leer ci ñëpp. pourtant Omar Sarr désigné woon na la comme coordinateur du parti. waaw wax na ko yu bari bari ci sa ci kanamu nit ñi ni ma diri euh, euh, génneel ñu frustration yi ñu nekk ci àll bi génneel ñu ko wax na ko waxati ko. Mhm. yebal ma ci ay dëkk yu ñëpp xamoon ñu bari fekke nañ ko. Mhm. mais man dama am lu ma gëm moom mooy lu may am rek Louga ma koy may. Mhm. mooy du ma njoolu du ma jaar ca kaw du ma dem fenn di fa taxaw pour ñu ñu fal ma. damay bëgg lu may am rek parti bi ci base bi jox ma ko. ndax booba ngay légitime ndax tey bu ma demoon dakaar Dakar bricolé ba ñëw ni man su ci le coordinateur ma ñëw waa Louga bañ. légitimité daf may të. mais bu demee ba waa Louga toog ni uxaañu doy. kooku defe naa ni dana am légitimité pour mën a diriger parti. gëm naa ko. légitimité boobu bokk na ci xëy na sa ndooma tànk ci parti bi xam na ni secrétaire général du parti démocratique sénégalais wala coordination bi am na noonu koy waxee yow ñu ngi la cay tudd ñu ngi ciy tudd euh, Aziz Ndiaye loolu nan nga ñu koy expliquer. waaw mooy li may wax léegi rek xam nga parti moom bu fekkente ni dañu daanu. bi ñu daanoo te renouvelé guñ. kenn ku ne bu ñuy demandé naan euh, bu ñuy def réunion dañu naan kenn ku ne poste mi bëgg na ko bind. bépp membre euh, PDS ak militant bu mu mën a doon am nga droit wax ni nañ ma bind ci secrétariat bi wala présidence. Mm. ñu bind la. Mm. mais gannaaw jaayuñu carte renouvelé buñ voté wuñ. moom kenn ku ne li ngay woote yaa koy woote yow la concerné mais man du ma concerné parce que doo ma woo ma ñëw te yilifu ma. kon amoo patron ci parti bi jamono yi. Euh, ci PDS Louga. Mm-hmm. non. ah oui ah non. pourtant président Fallou Mbodj mi ngi naan moom mooy coordonnateur parti bi. mooy li ma la wax léegi ci laay tàmbalee dama naan euh, parti bu ñu renouvelé wul on ne sait pas kii kii euh, euh, lu neex waay woote man gis naa fi ñu naan ñooy coordonnateur gis naa fi ñu naan ñooy secrétaire général gis naa lu ne gis naa ko fi. Mm-hmm. mais toujours man ça ne me branle pas tout temps damay gëm ni rek yooyu yëpp ay appellation la mais fekk jaay ñu carte rek mënuñu xam. kan moo jiite kii. Mm-hmm. en tout cas danaa fexe ba daal décision yi fi ñu koy jëlee muy Dakar. décision bu ñu mën jël ak fañ koy jëlé bokk naa ci ci instance yi. Mhm. xam nga lool moy lepp solo. moy comité directeur bi fépp comité directeur. lan mo dugal ci comité directeur bi surtout jàpp naa ni bo bokkee comité directeur da ngay bokk fala bu dëxëy na d'office ci ni jaay carte yi xam na ni euh, ci membre nga bokk commission nationale bi lan mo dugal ci comité directeur PDS. Euh, euh, ablad personnellement ci commission bi ma bokk daf bokk na ci 30 yi ablad di jëkk bind. Mhm. Euh, boole ma ca. bi ñu ko waxee bay lim ba wax euh, oxam mi defaroon permanence bi ko mu ne kii bokk na ci ñi ma dul war ci ñu ñu ma teel a bind lañ trois mois avant ñuy wax ci bureau bi sax man euh, nekk naa ci liste bi ñu wax ma ko depuis France ni ma yaa ngi ci liste bi. Mm-hmm. kon man sama légitimité ci parti bi du damay damu mais yàlla daal moo ma ko jox. mooy bi maanaam liggéey. Mm-hmm. gëm parti bi te du ma mas a du ma wor du ma fen. luma la waxit lolou la gëm lolou defe na ni même ñu bokal parti bi gëm nañ lolou moy luma leen wax rek lolou mo nekk ci man mhm. waaw ablay Wade mo la jox permanence bi waaw euh, permanence bi euh, secrétaire général adjoint moko signé won jox ma permanence bi euh, ma légitimer ko muy légitime ci man moy bi manam du sax lo xam dañ nan wa Louga ko dajalo jox ko dañu xol ni man na defaraat permanence bi ñu jox mako ko ma defarat ko yor ko ñu defal ma wa sama xaliss bop mhm. waaw biñ ko defare sax ba pare Euh, Ablaye Wade woolu na ma dafa naa ni am na ku toog fii ñoo àndoon muy sëñ Lamine Mali maa ngi koy nuyu moom ak xaadim yi ma àndal. Mhm. di leen siyaar bu baax ndax moom fu ma nekk ma nga fa. Mhm. Euh, lu may li yëngutul ma nga ca ma nga dëkk ba Kaolack fa la milité. maire Dakar lay liggéey comme cadre supérieur foofu. Mhm. waaye fu ma jëm rek parce moom dafa dafay ànd ak man. di ma conseil nag ci lu war a bari ci politique. ñoo àndoon dem ci Ablaye Wade. bi bi ma woloon bi ma demee euh, dañu toog def nañ fa lu mat cinq heures ma ñu won ko photo yépp ak niñ liggéey permanence bi and ak ma diké ñaa ma diké ñaa ni ko ki dé moko liggéey ci xaalisam té ñun yëgaluñ ko sax mu daal ni ma ah man dé liñ may défal dara néwna waye yow da nga jara dimbali ndax dang may jappalé kérok sax wona fa lamin cham bëgg ko jot ni ko dama bëgg permanence mère bi nga def ko né bu luga soko ko deful dinaa ko jaay ndax ni ko xade permanence luga soko mu ta def dina ko jaay wala ma mayé ko bu mère daal di tay tek daal ni ma uxa est ce que jar ngaa dimbali ba soxla nga xaalis ma ko ma ñaanal munima ni ma soxla waay auto, ma ko yor mu kontan lol ni ma yow sa day ma xam ndax man buma yorul xaalis rek damay teju waye da ma wax lu jaxal bima genné mu wo euh Aline Diop mang ko walé suma xarit la moom moo mooy pilimu Ablaye Wade mooy bind discours yi defe naa ñu bari xam nañ ko mooy nekk ci wetam. Mm. mooy léppam daal di koy woo wondooy ñoom ñaar ñëpp yëgoowuñ bi ñu génnee deux heures après kenn ki woo ma ni ma man day Ablaye daf ñu woo ñu def de briefing mu ni ma kii de na ngeen moo ko jàppal parce que ñaar yi ku ma ci masa nattu am la. Mm-hmm. ku mën a doon nag. Mm-hmm. jàngalekat laa mag laa waaye suma proposé nit xaalis. mu gàntal ma mu proposé ko oto mu gàntal ma. tout le temps bu gàntalee lii rek nangu lii dana ma ne xaalis bi sax mën na sa ko gàntal waaye oto yi moom ñu koy gàntal bariwul ni ma na ngeen nañ ko jàppal ci la génn woo ma ba léegi ci la couleur gi doxee lu muy def danaa ko yëg dana ma woo ndax. nga bañ xaalis bi bañ oto yi. déedéet ni ko nang ma ñaana rek sa ñaan laa gën a soxla ka loolu.

sumo fi ñëwé rek ñu bari nak lu ko xam nañ man tax dama fi ñëw di fi yag mm. ñu bare bari xamante ñi tukki ak ñi wul ñi ñi ma xamul it ñu ci bari danañ xam sama tur mm. wala ñu dégg ko man dafa am luma gëm moy man sama dund ak sama jëf amul solo li am solo moy société bi may dund nan la wara évoluer ba dund normal dund gu gu gu décent goo xam ñun ñëpp danañ ci gis suñu bop loolu la gëna gëm parce que France gi nek suma fa nekké mën naa ni ca couche sociale bi gëna faible ca ngay bokk mais dama gis dara du la manki am nga sécurité gratuite am sécurité sociale gratuite ñu lay faj gratuitement ngay lepp c'est gratuite té kenn fayu ko lu nit ñu jup di fay ay impôt di fay ay droit euh, mo defar rew mi bañ am loolu mané wa pourquoi ñun ñi nga xamni dañuy tok di leen xeeb nan amuñu diiné amuñu moral amuñu dara ñu mëna organiser ba nga xamni ku ñu fekkon ci mbedd mi nga tëdd ci mbedd mi dana la yóbbu faj la te duñu laaj foo dëkk foo cosaanoo sa yoon ci lolu seen yoon nekkul ci loolu dañ lay faj comme ni ñuy fajee le président de la république française man ngeen a bokk sax nek mhm. ma xol ni waaw ñi société bi ñi dund pourquoi pas ñun mënuñoo dund nonu ma dugg ci politique ngir changer ci lima gëm xamna ni aw ma moral à donné ay duma joxé wu ay leçon de moral mais lolu la gëm li def ci sama dund moy société bi dañ ko wara défar ba ñun ñëpp ñu dund normal nga xam ni suma febaré damay mëna dem ci hôpital public sumay jangal sama dom, man mi sumay dom yi wax yow amna ay cadre supérieur mais école publique lañ jangé Sénégal fiñ tollu amatul kenn ku yóbbu dom école publique pourquoi parce que société bi dafa nek deux vitesses. ñen ñi am lool ñen ñi ñak lool. té liko waral lepp moy manque de solidarité et sociale bo euh, euh, collectif té lool dara warulu ko lu ñuy politiquer autrement moy dañuy ñëw ci politique pour am xaalis politique du am xaalis mënoo jël pépp jël pefet police polité dañ lay jël ñëpp xam la di la sargal foo jëm ñu topp la foo jëm ñu lay tàccu foo jëm ñu lay jox ay micro mais gënoo nit ñi kon loolu dafa am contrepartie contrepartie mooy lii ñu ma jox muy alalu réew mi nañu ko sàmm ba kenn ka nekk ca fëngli mi wala ca gannaaw màkk kulibantan su bokk ak man ci réew mi di ci yamandoo man bu bëggee transport en commun am ko su bëggee faju faju su bëggee tukki tukki su bëggee sécurité am ko ci contribuable yi ci ñun ñëpp ñu yam ci muy lu équitable loolu dama ko gëm te ñi ma àndalit gëm nañ loolu loolu rek a tax may gàntal xaalis Abdoulaye ak ay otam parce que dama gëm ni politique du rek am xaalis yow ci sa bopp parce que tey boo amoon alal alal ji ñaata nit ñoo fi amoon ay milliards réew mi di dellu ginnaaw seeni doom nekkaat ay pauvre te li leen ko teg ndax pauvreté du dara pauvreté du dara lu dul bëgg a faju fajoo bëgg a tëdd tëddoo bëgg a nelaw nelawoo bëgg a am sécurité amoo ko waaye boo nekkee ci réew moo xam ne danga nga lekk ba suur naan ba màndi boo fa boo bëggee faju yàgg ñëpp a yem ci ci faju bi mais loolu mooy richesse mais richesse yor xaalis jël oto bu rafet euh, jël kër gu rafet nekk ci biir yow ak sa jabar te bëggee nañu agressé la mais du loolu du développement. Mm-hmm. loolu laa gëm moo ma boole moo tax may politique. loolu laa gëm aussi ñëwaat après ci li nga ci mën a am ci ci ci euh, sa sa ta façon de la politique parce xam na ni lu nga xëy na euh, bëriwul ñoo xam ne dañuy topp politicien tëddu ngir alal. bariwul même ci Sénégal hein ah, loolu ñu gis mais yow xeyna euh, exception nga ci règle bi parce que bu la ablay wad woowee ni la am xaliss nga bañ am auto nga bañ quand exception la le président justement ñu waxaat tout ci parti démocratique sénégalais surtout ci Louga euh, euh, am amna ñu naan bi choro Ndiaye Jong démé fekki wa APR ci ngeen en tout cas affaibliru ci le parti démocratique sénégalais xaw surtout suux tuuti demu Coro Ndiaye Jong bobu parce que ñi ngi naan sax yaak fuyu fa waaw man doxna ci lu bari mako bolé booleeg yóbbu ñu indi sama kër ñu wote ko ñu jiital Coro Ndiaye détriment de Cheikh Mbacke Diop sama kër la lool lañ ko wote fi nga jóge léegi kër Fadiaw fa lañ ko wote sur seize comité électoral Coro Ndiaye am quatorze Cheikh Mbacke Diop am ñaar pourtant Cheikh Mbacke mën naa moom laay mën naa moom laay jàppale ndax sama xarit la sama couleur la mais dama gisoon ni intérêt bi mooy tey jii bu ñu ñëwoon au pouvoir ñu am un docteur comme Coro Ndiaye Diong mu ministrable lii dama ko gëm. fi toll boo demee tey Lamine ba tey bu dakaar bu la waxoon ñaata cadre Louga ay doctorat laa ko jox ñu bokk ñu bokk euh, cellule de cadre kenn mënu ko lim Louga gii rek joxe naa fi quatre cadre ay docteur yoo xam ne du ñu woon politique sax ma dugal leen euh, cellule de cadre pour ëllëg Louga am ay ministrables yi dul jeex. Euh, mu ci la ci loolu ci ci même même même kii bi xam nga koo kooku soxor ci politique du ko def. Hmm. jël ay cadre yoo xam ne ay docteur lañ jël leen dugal leen ci sa parti nga xam ne bu ëllëgee mën nañu nekk sa ay concurrence directe. Hmm. mais dama li ma gëm mooy kenn du jiital boroom xam-xam. di ca tek ko amul ah, di kenn du jital borom ah, ko amul xam-xam di ca tek borom xam-xam mm-hmm. lolo taxone ma jeli won cioro Ndiaye def tout pour ñu defoon ko tête liste mu jiite won Louga ma top ci ginnaawam di jappalé ba nim fi joggé bim fi joggé nak ñu bare bare wax nañ loolu ndax woo na la bi mi joggé PDS dedet mais nak yeng naa ko avant muy dem ni day dem ndax ba gisson na ay muy muy am ak ay relation ño xamni wax nañ ma mais loolu bref lu passé la bëgguma ci dugg ci ay ay vieum mais ci gatal def mom buma déggé xamna ni def na tout ci li ko tegoon Louga def naa ni kooku kenn du ko moom yëpp fi la leen fekk euh, ndax kuy cadre PDS rek dem naa ci yow taxaw ni la coro lañ bëgg a def tête de liste. Mhm. bi mu demee itam nag ñu bari yaakaar nañ mais bu ñu xoolee électorat bi passé xam nañ ni PDS déegul noonu de wàññeeku na nag franchement wàññeeku na waaye du dem ak coro euh, ñàkk am leader bu bu ñu bu ñu bu am consensus ñu d'accord ci ni mooy leader bi moo ñu teg loolu ñu ñu daal. mais bis bu ñu amee un leader boo xam ni consensus am na ci ñu ne ñun ñëpp ànd nañoo ak moom gëm naa ni PDS am na fi militant am nañu ko topp am na ñu ko gëm waaye nag euh, train moom lu mu rafet rafet ba mu locomotive fa mu jëm du sori. Mm-hmm. loolu laa gëm. pourquoi loolu di récurrent ci PDS xam na jamonoy Samba si Cissé looloo amoon Euh, on se rappelle sax des jeunes de Sama Xarit dañ wax des jeunes de Sama Xarit Cissé des jeunes de Maniang Faye des jeunes de euh, euh député Gallo Ndiaye pourquoi loolu di am ci PDS di ñëw à chaque fois ba xëy na légitimité dun ni kii moom moo ñu doy kat Alioune Yéwén euh, président Kassila moo war a jiite xëy coordination bi lutax à chaque fois mu yamay ay tiraillement kenn ku nekk di xété sa côté. wa xam nga loolu waxna ko barki dem ci réunion bi bima ma parole loolu laa wax man len ku nekk opposition xëccoo waratu la. ndax da ngay yalwan ku yalwan nak bañ sarax la sarax dang koy téye bu dëgër bala tour ndax bu touré man am nit nanyu ñi teud te do am fa yalwané ji wat euh, ni len nañu and tay waxante dëgg bu ñu xoolee ni matar ukha dafa légitime ci ci ci ci ci ci nombre bu mu euh, bu mu occuper wala ci ci ci ci ci militant yu mu am ñu xol ni même bu fekkee doyuma ñu ni ah nañu waxtaan ñu joxante ay poste yu responsable kenn ko ne ñu jox la li nga tollool pour ñu mën a ànd mais fii ak ñi ngi naxante mooy euh, da ngay gis koo xam ni légitimité man xaw ma ko yàgg naa PDS la lay wax certes loolu am na mais yàgg PDS ça diir rien dire Sall bi muy nekk premier ministre Ablaye Wade ak di nekk euh, président euh, président de cadre du PDS jëkku fa am na ñu fa fekkoon. Idrissa Seck kasaalika bi muy ñëw PDS am na ñu fa fekkoon mais dafa dem ba mu gën a légitime ñu jiital ko euh, maa fi jiitu woon daal te man PDS defe naa ne nanguwuma ci Louga ku ma mag jiitu ci parce que man Paris la milité woon tey jii ñi nekk Paris di ma dégg xam nañ ni ñi ñi dàqoon a campagne deux mille ci laa bokk mën naa ni keroog bi nga xamee ni kaar yi ndax Paris dañu centraliser woon vote bi yëpp Paris 2000 kaar yi jóge woon Lave Rouen ak Vernon ak yooyu. nga xam ne dañ leen di fayal ñu ñëw man ak Karim Wade ak ak doomu Moustapha Niass deuxième tour yi ñoo ko fay ñoo teg xaalis booba xaw ma Karim mosuma ko gis mais ki yoroon euh, kii bi ñu koy wax njóogu nga xam ne moo doon coordination bi moo yoroon coordination bi moo ñëw ci man ni ma Karim Wade jox na ma 10 000 francs français euh, Moustapha euh, Cheikh Tidiane bu ma jumul Cheikh Tidiane jox na ma 10000 yow loo ñuy jox ma yëkkati 7000 jox leen muy 17000 ci lañ fay kaar yi jóge Rouen ak Afrique yooyu ñu wote ci xam nga kooku ku koy wax 2000. booba responsable nga fa Dedet, déedéet mais dama nekkoon militant rek bu engagé wu. Hmm. dama daan xëy suba ba ngoon ànd ak ku ñu wax Kaluga mooy le premier consul bi Ablaye Wade Falo moom lañ fa nekkoon xëy mi ngi may dégg wala dina ma hmm. ñuy foyer ou par foyer di di di di di di mobiliser nit ñi. suur deuxième tour yi sax xeex naa fa ba ba policiers yi ramasse ñu Euh, gendarme yi plutôt ñoo fa nekkoon muy deuxième tour yi kon man PDS la masa doon musuma woteel keneen une fois la masa woteel àdduna ku dul PDS mooy élection yi passé ak Idrissa Seck woteel naa ko mais à part loolu te bañoon a woteel Macky Sall xamaguma woon Sonko moo taxoon ma woteel ko te réccu naa ko lool nag mm-hmm. waaw. koo voté loon Sonko. Idrissa Seck. Idrissa Seck nga voté loon waaw xaritu ko nga nag ñu fàttali ko xam naa ci biir waxtaan bi dana dana ci egsi ci euh, ak manifestation yeeg yooyu euh, mais justement ci nga jógee Paris ñu jox la 2014 PDS wala la koy jox booba PDS mi ngi mel ne sabar gu tas lu tax nga jël ko. waaw bi ma ñëwee maa ngi fàttali ko Aziz Niang invitation bi ma njëkk a def mooy bi ma naan am naa candidat. bu mané amna candidat rek automatiquement ñu bari dama genn rek ñuy woote sama téléphone ni ma koku de cioro la xana cioro lañ ci yaakaar ndax bo fekk na ma def lijeenti bañ ni cioro moy sun candidat ndax candidat la wax ndax bëgg rek mu leer ba nga xam du am ambiguïté mhm. bi ma ñëwé asil ñaa dafa ni ma wax uqa parti bu daanu di dogo a euh ñepp dem lo fi def mané ko waaw kay man dama milité won Paris jotaguma guma fo a am poste responsabilité mais 2009 bu ñepp faté ni manifestation bi gëna reuy bi modi def man mako ko ablad baba sama xare ngi dund ma ñang ñew na sama xare ñew na colonel Cissé euh awa ndjay ndam ci yalla ci yalla nako yalla yàlla ak sama xari kérok ño jité euh, convoi bi ak colonel Cissé té bobu man militaire guma ci parti bi kérok Coro ndjay mo wax discours français bi man ma wax bolof bi mhm. kon xam nga man naka jek musuma genn ci cercle PDS amna fi kilifa yu mag yo xani ne responsabilité bu mag ñing ngi koy yor ci APR maa leen yu PDS maa leen booleeg Abdoulaye ñu far gis ñu gis ñu Abdoulaye Wade ñu jot ñu jot ci Macky Sall tey ngi nekk ay cadre yu mag ñu ngi may dégg man euh, période laa mas a nekk musuma nekk feneen kon maa jiitu uxa ci Louga maa ko jëkk a ça veut pas dire que yaa gën a légitime uxa moo tax toujours dama naan leen man daal politique fi fi jaay ñu carte ak ñi ma fekkoon ñor ay poste nga xam poste yi ñoo ku mel Pam Jugaloo nga xam il est le secrétaire départemental. maire bu ñoom rek maire bu ñoom rek. Mm-hmm. kooku yàlla ko ko def moom moo fekk fi mais kenen ku légitime day wax lu ko neex fi de champ de ruine le ci parti bi euh, table rase la kenn ku la ni maa yor lii da koy yor yorlu mais ku ko tek xana en moindre mesure nee nañ ma Aly Gaye naka jek mo yoron secrétaire administratif. Mm. koku il est légitime mais tout le reste ma ngi ñoom a yem yoruñu woon poste dañoo ñew rek di di galgal mais du sen légitimité légitimité boobu nak politique moo koy maye politique rapport de force la man demuñu ci jàkka ja demuñu ci jumaa ja demuñu ci ay ay ay ay ay ay ay warate ci politique la nek politique nak rapport de force la hmm. ma ngi remercier ñep mais lool la gëm comme tous les coups sont permis non non non non non non pas tous les coups man duma def coup ba duma fen duma la wax luma ma gëm lu la wax fi buñu génnoon ci mbedd mi ci sama biir kër lool la lay wax duma def duma xass nit duma wax nit lu bon duma ko saga ndax bëgguma ku ma ko def mais nak duma def kuba koku mom ñi may andal police xam nañ ko duma la war duma wër di jema lobby duma lobby loolu ñi may def xam xam nañ ko ne buma doon lobby nee naa la lima bëgg ci parti bi dina am te duma ñëw lugu, mais duma lobby dama ne lumay am damay légitime walu gu ñoma ko jox ak département bi ni ma oxa yaa ñu ci doy bu ko defee fuma dem ni yéen a ma doyloo won jox mako comme ni ma defaloon cioro Ndiaye ni ma andon ak cioro Ndiaye bañ légitime ko nga xani kenn musta contester leadership am loolu la gëm mais may nangam may nangam loolu ku neex revendiquer n'importe quoi mais nag à la fin bu ñu waxantee dëgg xam ni li fi nekk lépp ay bricolage dañuy woo ñetti nit ak ñeent man amul réunion bu ma mas fekkee dañ may toog benn bis Dakar ñu ne ma demee am na réunion man leen man mënumaa ñëw wala wala mu fekk ma France ñu woote daal def nañ bureau provisoire def nañ jëf nañ diw mais du ma contesté ndax dama xam ne bis ngi ci bis yi. danañ ma sa jaay carte yi bu ñu jaay carte yi man ku ma jiitu rek danaa topp ci yow kooku wax naa ko na ko ñëpp dégg bis bu ñu jaayee carte yi ba pare ba renouveler parti bi ku ma ëppalee benn carte ma topp sa ginnaaw mais justement jaay carte boobu expliqué yi pare section yi monter cellules yi mhm. cellules yooyu ñooy wote ki ñiy jiite ay ay membres ay membres PDS ak ñi bëgg militer bu ñu militer ba nopp ba ñu identifier leen kenn ku ne monter sa secteur monter section bu ñu dajaloo kenn ku ne ñu ne la cent personnes yi nga jaay carte na quatre-vingts personnes bu defee ñu wote bu ñu watee nag ku jiitu rek man ma topp ci ginnaaw bu ma jiitoon nag ñu war a topp sama ginnaaw ku topp sama ginnaaw it nag moom danaa la eh, danaa la génne. Mm-hmm. waaw maa la ko wax. loolu kañ lay effectif. bi eh, euh, bërki dem ci réunion bi wax naa ko. Mm-hmm. nee naa leen bu leen ñu dugal mukk ci lu dul àgg. ndax fii ngeen ñu defloo parrainage wax naa ko ni leen bi ngeen ñu defloo parrainage ñu toog 4 mois liggéey ñu jàq suñu liggéey yëpp nekk ci parrainage bi te jàlluñu bari. ci lañ dawé rar gisatoo leen biñ ne parrainage bi ñëw na rek ñu xamni ni léegi yëf yi ñu disparaître ba parrainage bi jeex ñu ñëwaat légui ci nak loolu limi muy montré dama bañ ñu jaay carte yi ba ci biir ñu xol ni xeyna wax ko euh, leader euh, responsable yi wan. Mm-hmm. ni len moytu len ñu jaay carte yi ba ci biir favorable ku ngeen andal wala ñu ngeen yaakar ni ñoo wara na jitu ngeen arrêté ko waxuma lu rek Sénégal gep la wax mané ko Louga mom gi ma gi ma nekk suñ ko defee kenn dootuma fi jité suñu demul jusqu'au bout amatu kenn ku may respecté comme leader man maa la wax loolu. Mm-hmm. waaw kon am na beneen stratégie ñoom bu ñu jël boo xam ni. dana non wóoruma dama ni buñ ko def. dama leen bu leen ko def. parce que yàgg nañu tàmbali jaay carte doxal ay 2 mois 3 mois ba mu jàgg rek ñu ne arrêté nañ ko du ñu renouveler. Mm-hmm. te bu ñu renouveler wul toujours am na ñoo xam ne ñu ngay véhiculer ay moo naan maay nangam maay nangam mm-hmm. gisoo dootuma ni maay dara lim ma rek directement nga xam ne maa ko moom laay tuddee sama tur nga ko jox c'est moy comité directeur commission électorale bi ak yoy rek lay wax parce que yeneen yi fi nek yep suma am nekké nan may nangam wala may vice président wala nangam damay accepter lolu ñu fa tek ndax amul fuñu ñu defaree bureau te bokkuma ci waye jëluma dara musuma woté musuma wax ci télé ba tuddu ni may lolu duma ko def parce que kon damay nangul li ñu dogal parce que fekkuma fi réunion yi man bañ na ko dama nan len bu kenn wax ci sama tour hmm. mais lék lék ñu la diwol fi teewal té man yewaluma mako duma ko sax yëg loolu xam nga loo fa dogal man du ma ko reconnaître ndax li ma gëm mooy reconnaître uma ko du tee nag ku ni président nga man dinaa la ne président ku ni euh, secrétaire général nga dinaa la ko waaye waaye lu Abdoulaye nomewul gis nga fi ñu toll ñi mu nome ci secrétariat bi daf leen secrétaire adjoint ñoom ñëpp ku ma ci gis loolu laa lay wooye ndax Abdoulaye da ko nommé mu nekk ay ay ay loi euh, euh, nu koy wooye ay ay ay ay ay ay ay ay décret yo xamni parti bi mo koy doxal nomé la ni li lii mo la nomé li mo la nomé li mo la nomé motax li am nga droit légitimité li am nga droit légitimité li ñoña dama leen koy nangul waye fi ak lolu amul fépp ci Sénégal duma nangu lu li parti bi jotta joxé ko waye luko moy li ñuy woyé nit ñi nak mom comme neex nak woyé sa bop sax président de la république euh, waye man ma mom sama nang ak baña a

en tout cas bi ñu ko yëkkatee def nga ko ci dëkk bi mouvement boobu mi ngi am ba léegi wala amatul. waaw xam nga mouvement bi. Mhm. Lamine ma leen mënuma seede man membre fondateur laa suur bi ñu koy euh, formé maa nga fa mais dafa amoon lu ko taxoon a jóg. Mhm. la libération de Karim Wade mais si Karim est libre est libre mais sa raison d'être. amatul ak gisatuma ko. moo tax ba mu ne Karim libre euh, génn na laa leen ni man bu ma kenn wooti bu ma kenn yëgalati loolu parce que sa raison d'être kenn mënatu ko expliquer. Mhm. ndax libéré euh, mouvement libéré Karim Karim est libre mais mouvement bi nu muy tudd question boobu rek la posé man daal di retiré waaye liggéey na liggéey boo xam ni amul këru diine ci Sénégal gu ñu tegul suñu tànk pour défendre Karim Wade amul bañ ca jógee suñ sa ak suñ doole ak suñ mën-mën lépp dañ ko caa dugal di seeti Karim tout le temps di ko wutal ay autorisation yoo xam ne ñu bëri bëri ñu man maa leen wutal autorisation ñu seet dafa dem ba Karim Wade ci boppam moo ne uqa li fi li muy ñëw ni ma ñoom wutal autorisation dafa bëri maam pourquoi du fi am autorisation di la seet booba autorisation amagul booba sax ñu ngi koy wut mais booba amul limite waaye man booba amoon naay pexe dem di ko seeti mhm. sans autorisation mhm. ma waaye bi nga demee ba yëf yi ëpp bugguma chaque semaine nga gis ma ma ñëw di la répéter la même chose damay dem ba du ma lu ma la wax wala ma di la wax lu dul dëgg. te du ma ko def. waaye tey jii danaa ñëw teguñu ci deux semaines ci la génne bi ma keroog def nañ fa ma deux heures trois heures man ak sëñ Dame Lo ñoo àndoon maa ngi koy nuyuwaale. Euh, waaye dama dul ànd ak nit ci ay tappale wala ay caaxaan du Karim du Abdoulaye Wade du Macky Sall du keneen ku may àndal gëm naa ni ñi ma àndal depuis 40 xam nañ ni li may wax lu ma gëm la muy ci moodu gi ak ñi nga xam ne bi ñu jógee ci moodu ba ma fàttalikook léegi gisaguma ku ma jaral seen ko ci mbedd di teggi gisaguma ko ci kaw suuf. Ah déedéet ci benn nit. du ci moodu yi ma nekkaloon France du ci moodu yi ma nekkaloon feneen du ci moodu yi ma dëkkal Louga du ma jaar benn mbedd nit buntu kër gi naa ko moytu. Mm. parce que lu ma la wax rek loolu laa gëm. Mm. même bu ko yàlla sottalul. waatal ni loolu laa mhm. moo tax fan yii sax bi nga may woo te ma nekk ci yeneen yitte man c'est préfère léeg-léegi def blague awut ko fen mhm. boo seetloo da nga ko gis. Ablaye Lo de xaw na cee sax kii ni ah, moom de président euh, euh, <laughs> ok ñun booba ah, booba yàgg na fa nag faral naa ne sax attaaya ci buntu kër gi. waaw ah, da booba dama ñëw. jot la nag yombul. këlee la àndal dama crevé bi ma la ne maa ngi ñëw. waaw dama tolloog euh, hôpital rek crevé nekk pneu bi dafa toj. may wër pneu mujj batterie bi jeex sama batterie vide complètement lu ne def nako pour ñew pour li ma la waxoon ndax dafa bok ci samay gëm-gëm moy lu ma la wax dina ko def rek la lolu ñima xam mo andi turu uqa wi ma tudd hmm. ndax dañu nekkon ak ben arabisan su ñewé ci kër gi lek lek ñuy werante ñuy wax mu ñu leen xaar leen haq mom lu mu leen wax deug la muy Carlos Gay ma ngi koy nuyuwaale wala ñukoy wax bacci gay eh, transport la mu ni uqa lu mu la wax eh, bu ñewé mom lu mu lu mu transé rek nañ ci japp ne wër ma ni la bobu dañ dëkk mbolo ñi naan awaq ñi naan uqa ba uqa ji gën a law ñi di ma wooyee uqa mais lii moo di tur ñi ma nekkaloon France tur yi maa ngi ko am 84 kon xam nga mi ngi bëgg a yàgg ñu France boo doon wër ak Espagne wala dëkk européen yu bari boo nee Matar Sylla ñu bari duñ ko xam waaye boo nee uqa rek ñu ne xam naa ko wala dégg naa turam waaye Matar ji moom ñu baree bari ñi ma ñi ma ñi ma màggalool ci xale rek ñoo ko xam. Mm-hmm. ba ci ñi may àndal ñëpp ba la ma bien avant. mais ji mo mo gëna siw waye loolu moy moy moy sabab bi. kon nak loolu bëgg garder. Mm. ba luma wax. lég mm-hmm. lég nit ma nga jot lool mané ko fen ndax bëgguma wax préfère téléphone bi wala ma tek ko muy soné ma wax fen li rek moy tax du téléphone. ndax bëgguma la wax très bien ak ñu démocratique sénégalais même si waa karimis yi ci PDS lañ bokk mais jàppoon ni boobu bi ñu yëkkatee tuuru karimis ba léegi parti démocratique Sénégal dafa xaw a suuxee. Euh, euh, gëm naa ni sax am na ñoo xam ne dañ naa ñoom ay karimis lañu. Euh, Karim Wade moo leen dugal ci parti bi am ñoo xam ni ay souche lañu comme sa genre gi ay ay en tout cas fidèle lañu ci Ablaye Wade xam na loolu. waaw xam nga man nee naa la PDS laa ma a nekk karimiste dafa amoon lu ko jëkk yëkkati mais Karim léegi mooy chef de parti mooy pa moo topp ci Abdoulaye Wade Bara Gaye nekkatu fa xam nga ni wàcce nañ ko Karim était le numéro 3 numéro numéro 2 écarté. kon kay numéro 2 numéro 3 mooy numéro 2. kon Karim moo topp ci Abdoulaye Wade par xam nga yooyu gars yi ñoo ciy def ay sëdëmoo pour di jéem a rek jaxase xelu nit ñi mais ñun bi ñu àndee ak Abdoulaye Wade li ma gën a dugal ci Karim Wade bi ma àndee ak Abdoulaye Wade ba nga xamne ne Abdoulaye Wade na ñu gis ni ñu songé Karim Li mën naa am buñu songon songoon keneen sax ma dem ci koko mais biñu Karim rek automatiquement li ma jëk xalaat moy dañ ko bëgg neewal doole politiquement man na leen premier souru Karim wad. la fa nekkon buñ ñu ko jëkkee woo Colobane la fa nekkon matul 20 personnes quelques politiciens ñom Lamine ba ma ngi leen di ak Masali et consort euh, ak man ñu tuuti fa nekkoon gëmoon naa ni Karim dañ ko euh, euh, du ma ni deful dara booba waaye après ñëpp xam nañ deful dara ñëpp ci sénégalais yi bokk euh, dañ ko singali moom ak ñi ñu yaakaar ni ay prétendant lañ pour nekk candidat pour sonal Macky Sall ñu tudd ay vingt cinq personnes jàpp ci mennum Karim Wade di ko woo guddeeg bëccëg di ko di ko di ko toroxal ma kii ñu toroxal moom dinaa ànd ak moom ba xam fu waneen di mujjee ki bëtam mm. bi ma demee tuuti ci kanam ñu créé mouvement MLK. mouvement MLK di mouvement bi gënoon a mag ci mouvement karimiste kooku def naa ñëpp xam nañ ko def naa fi benn marche boo xam ne y avait 3000 euh, sénégalais lugatois yu àndandoo ñoom ay ñoom Pablo pab Diop ndam si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm ay ñoom euh, nu taal ay ñoom euh, Moustapha Cheikh Mbacké Diop ñëpp génn ñii departement bi ñëpp génn ay ñoom Thierno Dieng ñëpp ñëwoon nañ bokk ca manifestation muy manifestation boo xam ne ñëpp nangu ne dafa dafa réussiroon mais boba bi ma def ma ngi don risqué. Mhm. ndax boba euh, euh, le préfet dem nañ bañ ciowo ndax dama jëk def déposer autorisation de de marche mu annuler ko ni ma euh, dafa nek pendant à la justice kon kenn du ci mars ma def point de presse niko samedi nga may ma nga bañ ma may dinañ mars vendredi ci guddi lañ min mi police ni notifier ma autorisation xam nga koku combat bu rëy bobu ñi ngi japp Karim war ko até mënoon la cee boole mënoon la sonal mënoon la toroxal mais teewul sama gëm-gëm mooy damay xeex ngir démocratie entre parenthèse manifestation yi am mag la Sonko la ñu jàpp xëy na Karim Wade mën na cee bénéfice mais amul benn fan benn fan ci manifestation yoo xam ni nekkuma ca kanamu ñay manifester ba mu jeex. ba yu Dakar yi. benn fan bu ma demul ba vingt amul. amul benn fan bu ma demul ba vingt heures fa jullee tisbar takusan timis fu koy julé dit way maa ko wax ndax xexaluma Sonko. c'est lutter pour la démocratie et la liberté. ndax dama ne buñ jappé Sonko rek la démocratie sénégalaise est enterrée. le président foo nekk ci ci ci ful bi. ci kanam man nga ko xol ci ci Facebook. ànd xalé dama nan dama ne la musuma daw sax duma ko def man duma daw ñi ma doon àndal sax dañ nan paa bi dafa def duma daw ki and nañ manifestation man duma daw. bi ñuy jàpp de croix keroog bi ñu koy tëgër bi jow maa jàpp ci loxo bi boo xoolee ci ci ci youtube bi da nga ko gis maa soloon semis bu la bi kor loxo bi téye ko ñu ngi xëcc fii ma xëcc ko man du ma daw kenn mënu ko de alxuraan ngay ñu jiital ko doo ko mas a gis ci àdduna doo ko dégg ñi ma doon jàng alxuraan xam manifestation yu yu metti la woon ci ci Sénégal nga demoon manifester ji au nom de bi ñuy daaneel mi bëgg a daaneel miiru caserne bi man maa doon wax ak booy ne bu ngeen ko daaneelee euh, danañ tiré ci seen kaw kon xam nga jege woon naa miir Samba Diéry Diallo ndax dama gëm mm-hmm. ni man sama bakkan wax naa la ko ci début amul solo man li ma ñor mooy la liberté et la démocratie et le développement di Sénégal kooku lu mu noo ko jaayee rek ma jënd ko lu mu ma ko jaayee ma jënd ko parce que dund naa ko xam naa ko mënoon naa ni sama jabar ña nga France di jàng di liggéey mm, lu may def fii di kii mais li ma gëm mooy Sénégal dafa war a mel ne France ci démocratie et la liberté gënuñu ñu gënuñu ñoo intelligent pourquoi ñoom ñu am lépp liberté am jàmm di faju wér am li ñu bëgg di am li leen neex lépp nekk seen liberté ñun ñu bëgg a nekk ay golo yi Macky Sall ou quelqu'un d'autre loolu man de du ma ko accepté mais la wala participation manifestation si on sait que la démocratie la won ak Sonko est doon wax ni euh, mom la mom la amone ak lepp hein, ak ak affaire Beauté bi bu fekke baño ñu wax ci ñu ñu ñu wax est-ce que ak yi am les les derniers développements rëccu yow demone def. man bu doon suma ma xam nga lutax li ma la wax gi man la liberté daf ma la liberté. et la démocratie et eh, le développement jaral na ma sama bakkan ndax dama ko dundu xam nga bu fekkonte ni dama yaro sénégal magge fi musuma ko genn gisuma benen dundu man na am amna fuma ma dul ag mais dama gis nit ñi am jamm di faju di lek ba sour di nan ba mandi di di teud fi len neex ku duñu bàyyi kenn bord de la route ñepp dañ leen di envelopper di leen yobbu bo demone france tay amul benn nit bo meuna distinguer ak morom ja ay classe sociale yi presque amul ñoy bokk métro yi ñoy bokk train yi ñooy bokk la liberté et la démocratie et l'équité té dama ko gëm té réew mi dañ ci wara a dox moy nañu ni ba nit ñi ñu yemale leen le minimum néew ñu ñëpp nañ tolo wërsekk mais nañu fexe ba képp koo xam ne yaa ngi dund ci réew mi ñu defal le minimum parce que sa droit la mooy droit de la santé de l'éducation et de la sécurité kooku état moo ko ameel nit ki. sañu ta bañ ñeexaluñ ko ci waruñu ko ci gërëm man duma gërëm benn ministre. état mi ngi ci ak CMU ak yooyu. loolu baax na. plan Sésame yooyu yëpp. yëpp baax na même ba ci euh, euh, li Macky Sall defoon di ko aidé néew ju doole yi euh, nu mu tuddati. mooy bourse familiale bourse familiale yi. lu ma rafetlu la certes ni ñu ko defee am na ci lu ma naqari mais réew bu ñu fa nekkee soo bëggee am liberté cause bi gën a faible gën a fragile da leen di jàppale. bu ko defee yow mi nga xam ne yor nga sa 4x4 bu rëy yor sa ngandam kër nga am sécurité lu ko mooy diine diine andi lañu lépp defal ñu ko mooy di leen génnee asaka di leen sarxe di leen dimbali di leen maye su ngeen ko dee def ki ngeen di dimbali di ko sarax di ko génnee asaka du leen faagaagal mais bu ngeen dee am alal di ci lekk di ci naan yoro ay oto di noos bu leen jekkoo faagaagal leen diine ko wax man waxuma ko loola nag mooy li nga xam ne tuwaay loolu la ñu jàng bi maanaam dafa am benn bindkat bu mag bu demoon Égypte mm-hmm. wër Égypte dem France wër ko Angleterre bi mu ñëwee bi muy bind synthèse mooy dama dem Égypte fekk fa diine fekk fa l'islam ju àndut ak diine dem France fekk fa diine ju àndut ak l'islam ñu ne ko loolu nan lañ ko expliquer mu ne li li li France di def bay dimbali nit ñi di leen taxaw di leen jàppale ba kenn du nekk bord de la route loolu mooy diine mm-hmm. l'islam jama fekk Égypte dañuy ku man sa morom duma ku ba jekku rey waaye jàkka yi day fees ak jumaa yi mu ni loolu mooy lislaam ju àndut ak diine loolu dama bëgg Sénégalais yi jàngat ko ja jàngat ku rëy la nit ñi du ñu nare am jàmm te du ñu dimbalante wala ñuy xoolante bëti yërmande fii du ñu ko def du ñu am jàmm te loolu tubaab bi daf caa dox tànk yu bari yoo xam ne demaguñ ci mooy bu ñu bàyyi kenn bord de la route France fi ñu toll ku liggéey ku liggéeyul te masa liggéey wala ngay gone wala ngay xale danañ am lu ñuy teg ci sa loxo. Mm-hmm. jëlee ko ci borom xam borom alal yi dagg leen ko force jox ko ñi amul ñu koy dundee. président nak France ak Sénégal xaw na noo wute. waaw mais néew ñu mel noonu mais nañu góorgóorlu. waaw ndax ñun ñàkkuñu am nañuy matière grise bi mi ngi fi suuf si mi ngi fi. day taw am nañ gaz am pétrole jum moo fi bis bu njub gi ñëwee lépp ñëw nañu fexe ba ñu ñun ñëpp kenn ku ci ni nga meloon nga seetaat sa bopp jàngaat sa bopp defaat autocritique ñu dem ca kanam teg ko ci social équité justice ko réew mi jub bu ñu ko deful ci li nekk duñ ci très bien euh, waxuma sax du ma wax sax ci ci Sonko bi ak euh, mais liñ ci mën gagné politiquement Ousmane Sonko parce que xam ni ni des koy chef de l'opposition, opposition Karim Wade xam da nga wax ka lay ñëw ndax yow jàpp naa ni et est ce que taxawaayu Sonko jamono yi affaiblir Karim Wade bu Sonko amuloon position bi nga xamante vous fi la taxaw. militants. ñu ñi gisé bokku ñu système sonko dama am sama benn cousin buma ci faral di togn bo xamni ni def na ni invité won nga fi wala fenn gis na ko ci plateau yi mhm. ñu abdoulaye ndjay ko ko walé sama rak la mhm. sama doom badjan léeg-léeg dama koy togn ni ko man dama def ni yeen ñi ngeen ay sonko ay extraterrestre ngeen ndax bu ngeen dee wax day melni bokku leen ci masse populaire wu sénégal ndax da ngeen di def ni yeena gën ñep yeena gën jum ñep yeena yeena gën clé gën intelligent ñep mané ko lolu nak baxul da ngeen di wàcc tuuti wallaahi wal kitab. ma ne ko da ngeen di wàcc tuuti wàcce niveau bi parce que euh, booy xëcc élastique bu xëccee ba mu teeng rek dagg lay mujj ndax lii daal Sonko parce que ci élastique bu dagg très bien ndax sama jàngat la. très bien kenn ku ne yaa xool noo koy jàngate demaluma Sonko ci manifestation loolu dama bëgg mu leer ci ñëpp. interviewé nañ ma ci benn télévision camerounaise c'est dit la même chose souci là pour la liberté et la démocratie Macky a essayé de piétiner notre démocratie. On va le combattre pour rétablir la démocratie. loolu dama ko gëm ndax Macky Sall daf ñu fekkoon ñuy xeex avant l'indépendance ba léegi sunu maam yi ñu ngi xeex. Mm. mu ñëw fekk fi xeex bi ànd ak ñun xeex bi ba àgg ci démocratie duñu may mukk nit di ko piétiner. Mm-hmm. te duñ la euh, àllankoor foofu laay ñëwaat ci Sonko. Mm-hmm. ma lay bëgg wax ni Sonko jamono yii dana gañe lu bari ci ci politique mais beaucoup ak ba léegi. ñi ko gëm ak ñi gëm Karim Wade ndax moom am na militant loolu kenn du ko am na ñi tam ñu xam am xam-xam am ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di ko liggéeyal waaye Sénégal dafa am benn réalité réalité boobu du feeñ léegi ci kanam lay feeñ bis bu Khalifa Sall ñëwee ci làng gi Karim ñëwaat ci làng gi da nga gis beneen physionomie politique bu bokkut ak bi fi nekk te loolu maa la ko wax dinaa toogaat fii nii la noo gisee dëkk bi. dañuy wàññi doole Sonko. bu biir maa la ko wax man ma tax te Macky intérêt mooy ñooñu ñëw pour équilibrer euh, politique bi su ko deful Sonko va gagner wala mu gagner ki fi tek te ah du yomb de. reconstruction famille libérale non je ne le crois pas. ah oui ndax ñun duñ ko nangu sax d'ailleurs ndax li tax duñ Karim yaangi xol PDS nga ancien PDS bu fa dess da que eh, eh, eh, da c'est c'est pas anodin ñoko tay pour pour pour pour dañ fi nekkoon ànd ak Ablaye Wade di jaxase parti bi di yàq di def yooyu bëggatuñ leen gis ci suñ kanam dañu bëgg Karim bu ñëwee am neneen nit ñoo xam ne man mën naa ci bañ a bokk ndax xëy na am na lu tax am na x y ndax man mën naa xëy Karim ñëw fii yor réew mi ma gis ci lu ma neexul ma ñëwaat fii toog di ko contre kooku bu bàyyi ko xel ndax dama ko gëm man dama gëm ni réew mi dañ ko war a avancé ku ko gëm nag bu Karim avancé ñu ànd ak moom. su changé mel ne Macky ñu def ko ni ñu def Macky Sall loolu dama bëgg mu leer dès bëgg bëgguma di wax di neexal nit ñi dama bëgg li ma gëm ma wax ko fii bu ëllëgee ñu ne xaa ko waxoon def na ko Karim nag dañ am ci moom yaakaar ndax ñaari fan benn bi ku am yar la kenn déggagu ko mu xuloo kenn wala mu xas la wala mu wax la lu bon kenn déggagu ko kenn dé saaga nañ ko fi xas nañ ko fi tur wu ne tudd nañ ko ko kenn mosu ko dégg mu tontu loolu nag qualité la ci homme homme d'état moo lay wax ni la kii du nit kuy dugg ci ay détails ndax kilifa du dugg ci détail parce que détail dañu ne saytaane làqatu ci ginnaaw booy sori rek gis saytaane moo tax Karim loolu benn benn qualité la beneen bi mooy bu ñëpp xamee ni Karim c'est un ingénieur financier génn ci école bu mag bu ñëpp xam liggéey ci institution yu mag yu ñëpp xam nekk fa kilifa boole koog ñëpp xam nañ ni carnet carnet d'adresse bu Karim Wade dafa dafa dafa bu carnet d'adresse bu mag mag la ndax roi Qatar moo la yónnee ñu jël si kan moo la jël si frère am cadet ministre des affaires et le procureur de la république kimli moo la jël si ci jet privé yóbbu la. ko bu Qatar kooku ku ko bëgg a jàppee nii lu yomb la te te Qatar doon réew mi nga xam ni fonds de garantie après la Chine moom moo ci yor mille milliards de dollars boo xam ni. 15 euh, de dépôt le xaalis boo xam ne da doyu ko dara lu dul di ci am intérêt kooku bu jël seen nit ci sunum jox du du le plus riche du monde du def lu Karim yëgul xalaatu ko loolu daf ñuy délo ci xel ni réew mi liñ ci bëgg moy ji ak développement bi nañ mais est-ce que Sonko carte gi président. sur le pense pas te li ma la wax bàyyil ba si lii mu taxawee nii xale yëpp ànd ak moom bàyyil ba pënd bi wuri nee naa la man mii dama doon xëy tous les jours est ce que sonkiste la te bari naa ci morom ñoo xam ne te loolu ku même yéen ñi nekk ci plateau yi journaliste yi waroon ngeen a bu Macky Sall tëjoon Karim Wade suñ démocratie mën nañ ko yóbbu Touba si karal ko denc ko ndax dee ndax moo doon suñ dernier rempart bu ñu tëjoon Sonko du question Sonko laa doon défendre dama doon défendre la démocratie bu ñu tëjoon Sonko dama ne la Macky dana taxaw fii ci buntu studio bi ni tëj leen euh, télé bi maa la ko wax man te loolu lépp dafa bokk ci li ma doon xeex Macky dana taxaw fii ci bunt bi yabal ay gaayam nii la tëj leen télé bi li ngeen di wax neexuma loolu nag ni ku ko gisul ku ne xamoo politique da nga cee bokk bokk la rek mais xamoo ko soo gisee gaayam yi daw di làqatu fañ jëmoon dañ ko xam mu sori ñu gàllankoor leen kar leen ndax fa ñu jëmoon mooy xam nga li xew Rwanda xool sama barang bi. génocide ba. déedéet xool leen ba sama baram bi. fi may xol xol leen. na ron am fi fa lañ jëmon mais sénégalais yu bari dañu yaakaaroon ni combat wu Sonko la non combat bi buñ jàppoon Sonko ndax Macky da ko mos mu neex jeexat da olof danaan jeexat fo fareb dom delo fa sa loxo fo fareb dom dang fay xalaat ni yenen dom nga fa Macky dafa japp Karim tejj ko ñetti ata genn wal réew mi quelque yëngatu ndax bobu Karim en nañ ko mais dafa jaawale pog mu mu japp khalifa sall dara yëngatuwul mu ni sonko way ñi nekkon ay maire de dakar ñi nekkon doomu abdoulaye wade nekk deuxième euh, personnalité de l'état ak ainsi ma japp leen dara xewul sonko waaye doy ma cere mbuum la li rek la sénégalais yi ni ko andu ñok sonko andu ñok kenn démocratie lañu andal japp nga sonko moy sul dernier rempart duñ la bayyi nga sacrifier ko sacrifice sun démocratie li dong la makki bu doorul sonko ñun mu dé mala ko man matar te bu ko neexee nañ ma déglu yone ko ko li wala wax bu doron sonko ñun da nga tok fi def sa émission ñu ñëw coupé ko ndax dem dictatorial bu dëgër mo fi am bu dëgër dëgër moy am ci réew bo xani ñun ñi sant si laag loo ma da danañ leen génnee delloo leen fañ jóge won delloo ma ci lay fañ jóge won ni leen delloo leen génn leen dug te duñ ci sañ wañ kan la Karim wa digal Sénégal Karim ne Karim de wax na ne dana ñëw mois de juillet inshallah bay ah, nak mom dañuy wax da ay dat rek après motax mané néna dana ñëw da fek juillet dana ñëw mais ñëwum jàppoon nañu am na nag président ñëwum Sénégal bokk ci en tout cas euh, ci ci ci action politique yi ci euh, ci ci xew bi comme ni nga koy waxee parce que aussi li mu bàyyi nii am na ñoo xamante ni may na leen champ libre bokk na ci Ousmane Sonko euh, est-ce que moom warut a ñëw nag léegi resserrer les boulons woowaat ñëpp raccoler les morceaux. ah kay man bokk naa ci ñi gëm loolu mais nag gannaaw dañ ko exilé woon te ñun xamuñu conditions yi du ñu fen lan moo ko yóbbu woon foofu. c'est à lui te ñu clarifier ci loolu wala mu décider ñëw ñu gis ko wala loolu rek moo ñu mën a leeralal ndax xamuñu lu mu demee franchement ku la ni fii ci Sénégal xam naa nii muy demee ku dul moom ak ña ko yóbbu parce que day wax lu ko neex wala muy demale ko fekkale wala ndax dégguñ sax avocat bu ci wax lu gën a leer lii ma wax. ci ay avocat mm-hmm. kon nag nañ ko jàppe ni dañ ko exilé daal moom wax na ko gannaaw dañ ko exilé nag. la ko yóbbu na toog ba xool lan moo ko yóbbu bu dellu see leeral ñu ci. oui ñu wàccaat tout ci PDS euh, local euh, wax ci euh, li nga xamante ni moom mooy élection législative yi weesu ñu bëri nee nañu sa dem parce que àndoog PDS élection législative weesu ñu fàttali ko affaiblir na quand même parti démocratique. non ah kay maa ngi ñoom àndoon. Idrissa Tall nga àndoon. déedéet moom laa doon leeral dama man ak Idrissa Tall dañu créé woon benn benn mouvement muy dekkal njàmbur. wa PDS formé bureau bima ñëwé fekk ño ño ñoo ñu formé bureau man leen buma kenn dugal ma dem and ak yassine Sey ñu nekk PDS dafa nekkon ñaar xamna ni yeen du ngeen ci won prêt attention mhm. da doon am ñaari convoi PDS PDS bi andon ak ñoom euh, ñoom euh, nu mu tuddee kan moo nekkoon seen di euh, euh kenn fallu mbojo fa nekkon ak Cheikh Tidiane mooy benn benn benn flanc bi. beneen flanc bi moo doon man ñoo nekkoon permanence di ànd ak Yacine Sy ak ñoom Adama Guèye ak ak ak ak waaw moo doon beneen flanc bi booba euh, Yacine Sy dafa dem fële mujj gisatu fa boppam mu yëg ni jóge naa France mu ñëw ni ma léegi damaa bëgg nga jàppale ma ñëw permanence ñuy ànd moo doon beneen flanc bi boo xoolee ñaari combat PDS ñoo doon mm. waaw ci dëkk bi. législative bi bon ñoo ñoo ñoo nga àndaloon. waaw Yacine Seye waa PDS la àndaloon. oui njàng sax waa ca fa laa nekkoon école njàng fi may wote. Mm. Yacine Seye la àndaloon. Mm. waaw moom laa jàpp mais moom seen seen kii boobu moom. boo dañu àndoon rek pour def coalition pour te nekkoon coalition nu ñu koy waxee coalition euh, opposition ca la euh, euh, Idrissa nekkoon ay As Diop nga ca woon ay temps ay Ousmane Ousmane Lo ak Lika Diaw ñoo fa bokk nekk. mais biñ démé ba élection yi ñëw PDS ni du and ak ñom ci lañ tàqalikoo man ma déllu wat PDS ñom ñu dem mm. waaw mais Yacine Sey la àndal très bien seen réunion bi barki demb ñu fàttali ni wa PDS Dakar ñewon nañu euh, fi ci Louga ci permanence ba ngir euh, réunion réunion bo xamni da fay xeyna na euh, pour njaayam carte bi la waye ci réunion ba amna nañu information ni tuutee tee mu tas ndax ñu andul ci seen biir bëri na président exemple bu bu parole euh, xam da nga ci bu parole démocratique les et les euh, euh, réunion oui réunion d' la pour vente des cartes. nan lañ koy ndax Dakar les cadres bu ñu réunion ba noppi ñu ne nag danañ wër département bu ak commune département commune waa département ba ñu ñëw dajalu daja ca euh, chef de euh, département bi ñu ñu def joxe information pour vente de maa ngi nuyuwaale Fallou ak Aziz ak ña daje woon PDS yëpp di leen gërëm ci mobilisation bi ak ñëw gi euh, man rafetlu ma xuloo ndax sama discours defe naa ñëpp dégg nañ ko et taxaw ci ñu ànd nekk benn kuréel yi dafa yàgg PDS mais mun na ñàkk waaye man gannaaw dama def discours rek. ñu ne ñu tàggee ma suma tànta fekkewu ma loolu am na lu ma ca nett waaye gannaaw man la plupart euh, lu ma lu lu lu lu lu lu yàq parti bi du ma jéem a xam ndax daf may bañ may jël position moo tax wallaay wal kitaab bu ma la nëbbuwul xaw ma nu mu demee dégg naa rek ñu ne amoon nañ problème waaye wallaay laaju ma sax euh, détails yi ndax intéressé ma ndax loolu gënalu ma man li ma gënal dëgg-dëgg mooy Aziz ak Fallou man ak ñi nekk PDS yépp ñu dajaloo xool nan la ñuy dajaloo ànd di liggéey te bàyyi tiraillement yi parce que tiraillement yi. du leen mën nulle part xam nga xam nga fan lay mujj wax naa leen ko keroog ci réunion bi yéen a ngi nekk opposition imaginez-vous Karim Wade jógee Qatar ñëw ak li koy topp ci ndiiraan riir mi am ñoo xam ne ñu ngi woon APR nekk feneen commencé démissionné yor seen xaalis ñëw fekk ngeen di def tiraillement yi ndaw yi dañ leen di fiir jaar ci seen kaw jàll taxaw ca côté kanam ni ko ca côté wu Karim yéen reyaale leen ma ne ko moytu leen loolu ànd leen. kenn ku war a jiitu ñëpp xam nañ ko ña ca war a topp xam nañ ko nañu ànd liggéey nga xam ni li ma waxoon ca njëlbeen ga kuy yalwaan yalwaan yi da koy téye mu dëgër balaa tuuru. tey opposition yalwaan la ndax amoo dara loo joxe dangay wax rek pour nit ñi la gëm topp la. bokkut ak ki nga xam ne dëkk bi ñu ngi naan fii am na fi ñoo xam ne am nañ ay 94 milliards am ñu am ay centaine de milliards xam nga dëkk ba boo ca nekkee di opposition boo ne sa loxo jotu sa gannaaw boo añee sax doo suur fa xeex ak xuloo xaju fi ko suñ ko defee da leen di affaiblir rek

résultat municipal yi. weesu yële weesu. ñooñ ñëpp a ngi fi ñun amuñu woon presque nit ku ñu xam ci PDS boo ci génnee Coro te Coro mu ngi nekkoon euh, ci gannaaw ci bi nekkee ci Sam Samba Xari Moustapha Diop am douze mille voix Aminata Mbengue am onze mille dix mille et quelque entre ci yooyu lañ nekkoon ñoom na différente ñun ñu am huit mille et quelque huit cent et quelque xaw ma cent mais ñooñu. moom lu euh, li ñu yor ci alal feeñul ci électorat bi te ñun loolu la gëm fii doolu PDS bu ñu demoon élection ñu ànd laa wax de xuloo amul xeex amul man gëm naa ni daañ def trouble fen ndax man miy wax ak yow ñu jege kilifa fii ci dëkk bi woo nañ ma ni ma ñun de bu ñu deful tête de liste dañuy bersul liste te yéen lañu yaakaar ni pour gagner buñu ñu ak yeen duñu gañ. ci wa APR yi waaw lu man mi wax ak yow. mané ko ñun dañu am parti lu sun parti décider ni ki la andal ci coalition ku mëna doon ñu and ak mom bam dess Macky Sall koku rek la xani bu ko waxani duma and ma ak mom waaw mais ñeneen ñi mom ku ñu wax ñu d'accord ci localement ñu wax bu parti bi ne and leen ak mom ñu and ak lu ko essence bi nekk yëpp ko yor wala ni bi parti au pouvoir tax conseil départemental sa bok ben si la ko fa nek di liggéey liggéey bu am solo ci département bi ci commune bi également Moustapha Diop moo fi nekk di liggéey liggéey bu am solo euh, ñoom ñoo yore yore instance yi du jafe ci yéen pour ngeen en tout cas xeex ak ñoom pour jël yeneen yéen yi nga xamante ni jot nañ ci teg seen loxo. xam nga Macky Sall moom day dem day dem moom xam nga du def troisième mandat. mais balaa muy dem ci la di organiser. élection foofu lay ñëw ban xuusmaa ñàpp lay teg pour mu téye parti bi foofu moo gis nga équation bi foofu la léegi Macky Sall kan lay teg bu bu tegee rek ñun ñu xam ban position la ñu am bu tege rek ndax bu maki tege mo xam ku muy teg problème am la waye ku mu teg ñun booba à part de là la xam ñun suñ doole na lay nek ndax ñi ñep xam nga lo leen fi bay maki, moo yor décision yi mooy président de la république mais tay bu ñu ne maki bokul ñu ne Massamba ndjay moy nek candidat wu APR léegi ñi dañuy daw gars fi fii dañuy samp seenu xel melni ne gor wuti fuñu jëm waaw maa la ko wax man Matar da nga toogaat fii laaj ma ko. nëbbatu ji dañuy làq bi ju feneen ah, recycler jiwuñ hmm. te loolu ñu ngi suñ kanam bu bokk ma diwal la rek gaa yi kenn ku ne tas lan ma la wax ne la ñii nekk Louga sax du ñëw ci ah, jàppale ko ma bind ko mën naa am ñooñu nga lim ñëpp mën naa am ci suñ gannaaw la ñuy mujj. waaw mooy constitution euh, famille libérale bi ma xam nga constitution ak daw làqu day am ñaar yu jege te bokkuñu man daw ko la leen gëna yaakar ndax fi doole ñi ngi préparé tek nañ seeni valise fuñ ko duggal ba dem ak mom lañuy xol waye mom valise mom tek nañ ko ñi ngi commencé di wacce armoire yek di ko pousse ci buntu bi pour mu neex a waye waaye fi doole ñom paré nañ mais fi ak 2024 élection locale yi xam na ni japp ma ni ko def 2021 tay rek am na yu génn ni matewul pour ñu def ko 2021 xam xamna 2022 lay doon bo gañee sa base est-ce que do am poids politique aussi tay di bu père APR gañewaatee maire bi gañewaat conseil départemental bi est-ce que même bu des Macky nekkatu fi fi ñëw est-ce que du leen baye xel. même bu leen baye xel bu maki tégué day am ñeneen ñu tegu APR bu maki tégué kenn ñeneen tegu té li ma la wax bind ko bu nee diw la yeneen diw dañ taxaw ci wetam dekk diw rakal yi top ci mais yeneen diw danañ génn. Kau mana la bis bu makki diu diw la da nga diu beneen diw ci wet gi Rakal dégg beneen diw rakkal gi doo ko xool ku ñuy àndal rakkal ñoo ñuy wër tas nyi dem ca Karim wad ñuy dem ca Sonko ñuy dem dañuy tas rakal ji yëpp dañuy tas ndax euh, diw bi moom dañuy tas moom mooy diw bu ne dana wat ni may diw muy ñetti diw wala nyant. ñu ne après ñeenti candidat lam rakkal yi nag moom nyi ñeneen ñi rakkal yooyu ñooy ñëw ànd recyclé wu ci parti

ndax kenn duñu faagagal ndax fii ay junni junni at suñuy maam a ngi fi ñu leen di reyante duñu kenn ñëw rek faagagal ñu comme ça duñ ko nangu wala duñ ko nangu doomu lugo nga conseil départemental bi xam nañ ni mbiri si la moo ko yor yoonu jëleelu si la bi leer na bëri na ay piste yu mu euh, addition d'eau yi mairie bu lugo également Moustapha Diop moo fi nekk boobu ba léegi naam da ngay tukki waaye boo ñëwee lugo ngay ñëw lugo commune ngay nekk nan nga gis xar kanamu Louga ak département bi ne ko mbiri si la liggéey commune bi euh, waaw loolu loolu loolu mbiri de lu mu liggéey man dama ci wara contane ndax defna gën mako jégué ci dérèt fi ak ci ci ci ci proximité entre nit ak moromam def naa ñi ma ko gën a def il a beaucoup de respect pour man may tam am respect bu bari ndax ba papa la ci man sun xam nga koku sun aada moyuma makoy wax dara euh, te xam na ko moom ndax jox na ma cër bi mo wara jox ci aduna jox bi mom waaye bu wax ci politique mbéri defar na tali jëleeru da ko war bu ko mané way tey xaalisam sax bu ko mënoon da ko war a def taxawu nañu def ko kooku ñépp ko war a remercier ci loolu ko dëkk jee leeru rafetlu naa ko waaye ba tey man dama gëm ni politique du defar naa jëleer wala defar naa këmit wala defar naa njoomeen politique affaire de euh, nu ko mën a waxee mooy affaire affaire euh, kii la koy waxee mu ngi may rëcc euh, affaire de nation bi la et société bi defar naa jëleeru man du titre ci man defar na ñom rek du titre ci man dama du bëggoon tay bu ma département bi wala ñu jité dara ci lu ñu ni uqa defar na département bi yépp ba kenn ku ne yaang ci gis sa bop ndax ba ma juddoo ba ma bokkee jëleer ba nopi dama bok ci société bu ñuy wax société sénégalaise bokkat ci dëkk bu ñuy wax Louga bokkat ci euh, communauté bu ñuy wax njambur njambur ñun ñëpp dama leena wara jariñ kon jariñ sama dëkk benn la ci xam naa ni waa jëlër bu ma déggee ñoom dana xam ni man jariñ samay bokk kooku duma ci duma ci xaar kenn ci ci li man ci social mhm. duma ci xaar kenn te def ma ko ngir wone wu yàlla tax ma koy def mhm. waaye tey ji jëlër bu ma fa mën def tali or dana ko def jëlër def ko ñomre def ko paaleen def ko këmit def ko njoomeen def ko kër aramin def ko euh, euh, njokk sàll def ko ngën saar def ko dëkk yi nekk njàmbur yépp or laa leen di talil man loolu laa gëm mooy ñun société bi yëpp ndax tey mu ngi mel ne tey rek ñu ne ma laaj ma ni ma waxoon tey soo nekkoon président da ngay jël sa doom def ko premier ministre dama naan la déet réew mi dama ko bokk ki nit ñu sant Diop ñu sant Fall ñu sant Ndiaye ñu bokk moom suuf si di ko xeex depuis trois ans ñu bokk fi loolu moo ñu indi problème yi ñu am sax mooy Macky Sall di jël ay xeetam rek ak i mbokkam di nommé. moo indi fi problème waaw mais non ci nomination ethnique bi laa wax. très loolu dama bëgg ñu ci ñu ci taxaw parce que c'est grave c'est très grave té sénégalais yi ñu koy bàyyi rek moy jall waxon na ko waxati ko waxati ko man ko jëkk a wax Walfadjri na arrêtons de def ay nomination suspect moy di nommer di euh, ñoo bokk sante di ñoo bokk xeet di ñoo bokk euh, waaso diw fi la dëkk di ñoo bokk raison lolou c'est dangereux Sénégal dafa am nuñ ko mooñaale depuis la nuit de temps temps Senghor ba ba ba ci Ablaye wad dañ nan raison bi nangami ni dafa dëkk nañ fa def ñaari ministre bu dee casamance ñu ne nañ def benn mandiago def benn joola ak benn soose bu dee louga ñu ne nañ def kenn ku dëkk louga kenn ku dëkk kemer kenn ku dëkk euh, nu mu tuddati linguère noonu lañ ko mas a jàppe depuis l' indépendance Macky ñëw dindi loolu lépp ñëpp gis nomination yi ni mu mel te sénégal yi duñ ci wax man lutax sénégal yi duñ ci wax yeen ñu nekk ci plateau yi très rarement ma dégg ko aborder te lu grave la c'est très grave ndax mo andi li am xam nga ni bu toge toogee etni ethnie benn nit taxaw ca naan nañ jël jaas yi bu olof yi ku bëgg a empêcher Macky Sall ñu gor ko mais bu ko olof yi waxee réew mi du tàkk démb dof bii nga xam ne ministre de la justice bi toogati ca fuuta di wax n'importe quoi kooku buñ ko toppee réew mi fan la jëm il faut que ñu arrêté moomuñu ñu jënduñu ñu jëlewuñu mali kenn moomu fii la fekk nañu yor réew mi ci yoon lu ko mooy booy yi génnaat dal ci seen kaw loolu ñëpp ko xam ñu wax ci diaspora bi tuuti ndax euh, yaa ngi ci euh, diaspora bi dafa liggéey euh, tey jii yaa ngi wax développement boobu ba léegi yaa ngi wax ni Macky Sall lii la waroon def yéen boo leen fi nekkoon nii ngeen di def pour askan wi indi nga référence France indi nga référence bitim réew diaspora bi également est-ce que ñoom amuñu part de responsabilité xëy na naam état mooy defar dëkk mais ñoom également qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour pour Louga. bu rëy ah? Ah? loolu dama la ciy ah, gën a remercier dama la ciy remercier bu bu rëy rëy ndax li nga ma posé question bi. man dama jité won ben mouvement bu ñu and défar defar sama dox yépp mo doon expertise bi ñu am ñun nan lañ koy défalé ben ki misal la ci fi nga tok plateau misal la ci ku démon Europe la di modu jang am inform ah, de formation yor tay télé bii kooku xam nga référence la mo di ko muy sama rak di mbacké nga xam ni sama lépp la depuis la nuit de temps ba muy jang ba légui ndax dañu bokku lu bari moy ay bañkat lañu duñu ñu nangu kenn warñu depuis xalé ñepp ko xam ñu bok kemit bok ciamben bok jang fere ñu bok fa euh muy sama rak ma diko remercier lool diko ñaanal mu am ndam ci limuy yëngutu ndax lool la ko mësa wax bama ko fekke muy de formation ma dem yobbu sama dom vacances niko sax ci te bu ci kenn jëlé mu ne ma damay jangi wax ma li ak ngon ci italy ma duma ko fatte mukk ma wax ko ci lama ci wax loola ba legi dama koy deugal lima bëgg wax fa ni modi sen part de responsable da ci am ñun expertise bi ñu am nga xam ne ñu ci bari ñii liggéey nañ ci ay ay entreprise bu ne moo du liggéey na ci boo xam rek wala nga imaginer ko rek moo du liggéey na ci bu dee élevage euh, mbayum noor yar jën def euh, transformation laitier euh, transformation sorte bu ne bu bu am rek moo du liggéey na ci dañ ci am part de responsable bi ñu ñëwee man sotti si gi laaj naa ko fi ay yoon pour dekkal ko ah oui lu bari mais nag moom nga ko wax ministre Moustapha Diop mooy ministre de euh, ba tey waaye xam nga politique dafa fiir gannaaw man damay politique fi ñu toll bu ma waxee rek ñu ni da koy politique yi mais euh, sotti si kaa man mën naa ko dekkal. boo laajee lu lay wax. Euh, toujours dañ may jox am na ku ñu may joxoon ne ma moo ko jëndoon daf ci am problème ñu ngi doon dem suuf si lañ may wax. ku dëkk Thiès. xaw ma trop. man maa jëkk laaj Abdoulaye Wade son France gis nga boo demee ba tolloog ba génn kër. amna na benn forêt bu nek ni bu poste courant bi nek masna dem ba ci Ablaye pour ñu gënal ñu décré ñu def ko son France xam nga luma ci jublu won ku tukkeeti ba ñew ñu jox la benn hectare def ko ci sa tur nii la demal wuti ay partenaire ngeen ubbi fi entreprise euh, PME. loolu la ko don doy ba Ablaye Wade accepté ko malheureusement mo wacc boba amona modou yi xam leen identifier leen yoron carnet yorlu la de 5000 modou yo xam dama leen identifier won bind leen xam fi ñi liggéey. nga xam ni dama naan la euh, année bu ne dañuy def benn réunion est-ce que xam nga ni tey ma wax la loo xam ne xëy na xamoo kon MEDES bu mag bu euh, Mbagnick Diop su si le cofondateur man ak moom ñoo ko formé ak yàlla ah maa la ko man mais la ma ca bëggoon da ko deful ma retiré wu keroog ba ñuy ba ñu koy créé ambassadeur Sénégal ma nga fa nekk ca ambassade ba huitième arrondissement cocktail bañ fa bañ fa joxe maa ko financé maa ko jënd sama soxnaa dem duggi ko ñu togg ko moom lañ servir ma bokk ci membre fondateur mais man fi ma bëggoon mu jëm fa dafaa jëmul ndax dama bëggoon mu jëm ci lu dul pépinière d' entreprise aider yi ñu créer ay petite entreprise loolu rek moo doon sama bit ndax loolu ko taxoon a jóg loolu moo doon bit bi njëkkoon a jóg waaye bi ma gisee nii leneen da cee raxasu ci laa retiré dana wax dana wax li ma la wax day lu ma gëm euh, réew mi moodu yi dañ leen cee joxul. li ñu yellool gis nga bu fekkon tane xam nga Modou day ñew tabax genn kër gu jar 200 millions mais 200 millions bu ko tabaxee kër mais dafa amul solution xam nga tay bo démé ci tubaab bi dama ci jox exemple ci affaire bancarisation dama koy faral di wax dañ ma ci invité ay émission la bancarisation du Sénégal est faussée dès le début ndax dañuy jël ay ay ay banque yo xam ils sont duñ ay banquier duñ ay banque ay ay ay ay CIE la ñu dajalo di def commerce mutuel quoi ba ci banque yi ndax taux yenn yi ku leblee xaalis borom fay France fi taux yi gën a yi gën de 1 pour 2 yeneen yi ay 0 virgule 80 ñun 17 mais 17 mais c'est say bénéfice du ko fay moo tax bi am ñuy nangu affaire yi rek banque ko nangu ci à gi tey jii li koy waral dañu wara a sun suñ bancarisation ñu xol toy ñu wacce ko ba nga xamni nit ki buy lepp tay ji 1 million dañ ko naan 20000 ci tegu wala 25000 mais koku du du perte du perte mu te banque bi na xamni mom garantie moko ko fofu mom moom liggéeyul sa xaalis de banque centrale bi ko garantie mom xaliss yi mi tëye dañ ko koy jox dañ ko garantie limi fay lepp dañ ko garantie muy fay intérêt ñu cey tégal matul lool mais ñun intérêt yi ñuy tégg ñu diko téggo état bi mo ci wara a ndax ay taxi yu ci am nañu wacce toy ba mu baax nga xam ne yow mi tey boo bëggoon télévision ñun la 200 millions lay coûter nga mën a dem ces 200 millions ñun la 10 millions lañ ci pour 20 ans Quoi, mën nga ko fay soo ci jëndoon ay mbaam xuux sax di ko yar da nga leen fay mais réew mi banque yi mooy suñ problème. dañ ko war ah, dañ ko réformer. c'est vrai Nous, yi nag bu ñu ñëwee. 100 mm. millions 200 millions bëgg a jënd kër Dakar luye ko ñu ne ko 100 millions yi boo ñu ko boo ko yoree ci banque tel de développement. dugal ko fa ñoom dinañ lay jox 300 millions tegal la ci 3 200 millions ba paré bolé ko taux bo xamni 2 la wala 4 da koy jël liggéey ubbi usine nit ñuy liggéey na xamna ni fii 20 ans dina ko fay bu déwon sax ak njabootam fay ko mais du perte mais bu fekkee da ngay lebal nit ki pour mu perte nga nangul limu yor mais koku té mo fi am banque yi accompagner wu nit ñi té état bi la ñoo wara réformer té nangoo gu ñoo réformer sama waji nak bu ñewon ci limu mu koy jëkk wax mom banquier c'est un grand banquier et financier bu ñewon limu jëk jëkk rek mooy réformer les banques bu ko réformer rek ñun ñu def moy taux yu faible cheikh mais bu soxla 100 millions suba ñu jox ko ko ko ko soxla ñu jox la ko taux bu wagne ko nga xam bo demone demoon jëndi ngooñ saalum sax bo dikkee ñu ne la 1 million 30 000 lañ ci tek nga dem nga dem nga dem nga dem salum jëndi ngoñ bo dikkee da nga mëna fay mais bu fekkante ni dañ ne la dañ ci tek 100 000 francs nga ñew ngoñ mi lamb wala ñu ngoñ dafi bari nga yor ngoñ mi 1 mois ñun la maratoire bi tek nañ ci 80 000 euh, waral nga ñu jox 100 euh, 000 francs amoko ñu ñew nangu ngoñ mi mais li ñuy def daal il faut ñu teg ko ci suuf xoolaat ko mais nag borom xam-xam bari na fi mais ñi leen jiite ñi ci ëpp amuñu xam-xam loolu mooy suñu problème. président loolu am na solo xëy na banque yooyu mais aussi gisoo est-ce que man xëy na ay gestes yenn yu ndaw yi sax la la la xalaatoon ay ambulance may ko wax que seen Louga ña euh, fa nekk euh, bokk fa di ay di ay di di di ay moodu moodu nekk ndoo ca réew ma ah, tabax hôpital xëy na parce que maa ngi dégg ñu naan am na benn centre de santé yuy tabax fële sax ci koñu ñaari tali yi def naa ni ay association immigré ñoo koy def mais yooyu laa gisul dama koy gis rek ci village yi xëy na da gis don de des immigrés de Ñomre ci ay ci ay kii mais gisuma ko Louga ci commune bi surtout. waa xam nga nitu commune li ma la doon wax léegi rek gis nga ci feeñ na ci politique bi. départ commune yi da nga leen dégg ñuy xuloo xuloo lépp Louga la nit nitu nitu taax ak ville moom la yàlla bindee noonu xam nga ñun bi doon nañ def social yi ñu doon def. Mhm. moo doon social booba social yi xewoon mooy da dimbali sa mbokk mu tukki dimbali jàmbur dimbali keneen koo xam ne rek war nga ko mën a dimbali nga dimbali ko mu tukki loolu moo xewoon mais tabax dispensaire yi baax na lool tabax poste de santé yi baax na lool waaye xam nga lu ko gën. Hmm. mooy créer usine production bu ñuy liggéey luye naa nit kër am ñu ko soxla ñu bare bari nanguma fay 4 fois wala 2 fois boog li ma koo koy fay xam nga lu tax ma ne ko ma jox ko ki ma ko jox dama ko ne da ngay liggéeylu ay nit il a embauché plus de 150 euh, personnes ci lieu bu ma ko kii ñoo fay rouler par 24 heures loolu moom moo tax ma jox ko mais gisoon naa mais li muy parce que dama ko gëm mooy il faut industrialiser le pays te industrialiser le pays xam-xam la laaj te xam-xam bu bobu nek na fi ci ñenn ñi mais ñi leen jiite yoruñu ko réew dañ ko industrialiser rew kenn du ko aidé doo dem France ñu nan tabax nañ ay poste de santé tabax nañ ay ki ñun ñu mënuñu dara socialement lañu wara war li ñu yor ñu seere ko dimbali patronat bi rew dañu dimbali patronat bi patronat moy ñan bo démé les les CAC 40 de France les les plus le 40 industries yi gën a France. mais ñoo ñu la état bi subventionné parce que ku bëgg a yor da nga leen di woo réunion ak ñoom ni leen léegi laa bëgg a def ñu ne boo defee léegi ñu ànd ak yow te ku ñu ànd ak yow nga gañe te ku yow nga daanu lan moo tax Sénégal seen patronat bi ñu leen di suuxal surtout ba Macky Sall ñëwee léegi patronat sénégalais bi yëpp ñu ngi à terre ci ñu bare bare xam naa ci ñu bare euh, à détriment de ay tubaab yu jóge fële ay ay multinational yoo xam ne kenn xamul ko ko moom ñu jënd leen ko au lieu ñu aider suñu patronat bi te loolu bu ñu ko deful ba àdduna te euh, benn bourgeoisie bo xamné ñoy yor industrie bi duñu dem réew mo dem demal italie dañ la torino la ville le plus industrialisée d'europe ci europe gep mo jëpp ay ay pme top ci ay kat mais l'industrie, yep ay industrie ay petite moyenne entreprise yo xani 10 personnes ay 20 personnes 50 personnes elles ñoy créer emploi mais état mënu créer emploi industrie L'industrie mag yi aussi du créer emploi ndax day am ay ay ay yu mag yoo xam ni soxlawul ay loxo yu bari xam nga ñenn ñoo soxla ginaar mm. eh, eh, loxo yu bari na ma eh, maa ngi demandé pardon mooy ñiy rendi ginaar yi dañu soxla ay loxo ñu koy butti dañu soxla ay loxo yu bari ñu koy raxas dañu soxla ay loxo yu bari ñi wattu li ngoom ji dafa ñu koy soxla ña koy yóbbu ca usine ba ñu koy yenu ci carton di ko dugal foofu la mën fa di génne suñu agriculture il faut ñu doxal ko xool ko il faut ñu investir ci agriculture et élevage li nga xam ne mooy production yu ndaw yi booster l'économie mu développer kese suñu ko deful wër-wër loolu rek la la jor doon defal tuba bi ñu naan xamuñu ko jitu mais kenn du xam ko jitu ku fekkewul ba ñuy tàmbali li leer mooy fii ak defuñu lii ma wax dañuy wër-wër loolu mais du sotti il faut ñu industrialiser le pays aider patronat bi jàppale bourgeoisie bi lebal leen xaalis taxawu leen même bu dee investissement à perte sa nga xam ne état bi day leble loo xam ne amu ci bénéfice mu di ko def pour emploi bi mu wëlbatiku di leen fay ay impôt direct et indirect pour réew mi développer mais réew du développer ci ay aide nañ ko fi jàppale nañ ko volé conseil régional bu Paris ñëw na fi man man na andi conseil régional bu Paris ñëw fi jàppale. mais mais amul solo. gis nga nit. lolu aussi président na ngeen def ko. Ah, nit ki limu mu ba xoolal. créer ay jumelage. amul solo amul solo tubaab du maye xaalisam lu la jox lu ne am na contrepartie lu mu lay jox bu la koy jox moom dajay and tël tubaab du maye. kooku ñu nekk Europe xam nañ ko tubaab du maye tubaab li mu yor kenn moomu ko ñoo ko bokk kenn amul droit maye ko tubaab kon du bàyyi ay baayam ñu nekk kolosaar di fanaan ci mbedd mi wala muy dem ci ay hôtel di fa fanaan di fay ay 10 francs nit tubaab du bàyyi ay mbokkam fa lay ñuy souffrir mu am problème mu chômage à 3 millions 4 millions de de français yu liggéeyul di jël xaalisam fekk neegar bu nekk ci mbadoxoon di ko may contrepartie lay ñëw fii am benn marché boo xam ne marché bu mag la yow gisoo ko ñu daal di dajaloo ci seen kër yooyu daal ni waaw dañ fay dem def bonne figure man man école dañuy koy wax toujours école xanaa bëggu leen ñu dajaloo ay kaye yóbbu ko ma ne ko mukk ñun yalwaanu ñu sarxuwuñu ñun li ñu bëgg mooy ñu ànd ak ñun liggéey suñu réew mi développé bàyyi leen ñu bu leen ñu saraxati téye leen seen sarax ñun li ñu bëgg liggéey bi ñoo koy defal suñu bopp mooy ñu développé suñ réew mi ñi fi nekk am xaalis réew bu nit ñi amul xaalis du développé il faut nit ñi état bi jàppale leen ñu am xaalis boo demee Qatar ña yor xaalis bi ay Qatar yi lañ boo demee Dubaay ña am xaalis bi ay Dubaay it lañ boo demee Arabie Saoudite saoudien yi ñoo yor xaalis ba Sénégal dong ak Afrique ngay gis moomuñu réew ma xaalis ba la fa nekk. ñun africain dong ñoo ko nangu. il faut ñu bàyyi nit ñi am xaalis Abdoulaye Wade doon na ci jéem xam gisoon nañ ko parce que loolu méthode anglo-saxon la mooy l'homme doit être fort et riche pour mën a embaucher ay nit mais si l'homme est pauvre na lay embaucher nit dañuy ñëw wàkk ko fi ñu doon la ñuy def normalement. danaa la ci jox beneen misaal bu gën a grave gis nga fi toll ñun ñu ngi lebe ci bor soixante di pour cent lañ ñu may ci suñ PIB amuñ droit weesu ko. Mm-hmm. li may wax économiste yi xam nañ ko. Mm-hmm. ñu ngi lebe ci ay taux yoo xam ni dafa élevé lool xam nga lu ko waral boo demee ci tubaab yi du ñu lebi ay banque mondiale ak FMI soxlawuñ ko ñoom ñoo fay def seeni xaalis pour ñu leen koy lebleel pour ñu am ay bénéfice seen peuple ñoo am xaalis su ñuy leb xaalis ci peuple bi lañ koy lebaat.

xëy na PDS bu fekkee ni division bi jeex na te jàpp naa ni boo leen jaayee seen carte ba pare au suura kii kii est-ce que yaa ngi am prétention yooyu. Euh, xam nga man li ma tàmbalee rek lu ma am rek parti bi laa bëgg mu jox ko. dama ko bëgg am na loo xam nag population bi la ko mën a. moom laay wax dama ne bés bu ma parti bi ne yow yaay suñu tête de liste. kooku mag population bee ci des mais il faut parti bi ni ma yaay suñu tête de liste quelque part moo xam fu mën a doon conseil département mooy li ma gënal sans père a fa nekk nag. waye liggey bi mo bëgg liggey moy mooy bi ma gënal ndax xamna ni té lepp nak ci kaw liggey la ko bëgg tek bëgguma ci def dara lo xamni damay dem fenn di talal loxo ñew naan conseil yi mo leen ko may loolu duma ko def all bi dana ko dag jox ko nit ñi ñu bay ko ah xam nga kon ban programme lay jël. 100 km 1 forage dëgg ma 100 km 100 hectares yu ne 1 forage 100 100 100 hectares yu ne mu am forage buñu ko defoon nit ñi bay fi lingom ji ak ak yi nga xam ne du fi doy bay mbayum noor àll bi verte comme ni muy verte nawet suñu ko defoon département Louga balaa mat dix ans Israël désert la ku am pamplemousse ci àdduna moo la ko jaay pratiquement ay tàppi la ñuy lal jal ci suuf di ko ji ñun ñu am suuf suñ taw am ndox nappe phréatique bi nekk nii yor ndox mu dul jeex kenn fu ñu defoon cent hectares yu ne ñu fekk leen fa ña fa dëkk nattal leen ko ba muy cent hectares ñu dóor leen fa forage daggal leen ko kenn ku ne jox la benn hectare ne lu neex waay bay léegi lépp jeex fi mais intéressé wul commerçant yi importé intéressé wul état bi fay ay impôt ndax dafa administration bi ñu yor dañu bëgg impôt yi ñëw ak tax yi ñu fay fay seen i salariés toogaat mais bu ñu bëggoon développement dañuy dellu ci tool yi dellu ci agriculture bi dellu ci élevage bi dellu ci industrie industrie bi pour développer réew bi lu yomb la mais ay xalaat la laaj ak volonté ak njub te yal nañu yàlla boole ci ña koy def te mu ànd ak njub ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu ñu yàlla boole ci ñuy jubadil alalu réew ba kooku moom ñaan naa ko rabbana te gëm naa ne du jóge ci samay loxo. Mm-hmm. sa relation Karim Wade. Euh, Karim euh, suma wax naa ko ci télé yu bari defe naa ni amoon nga bis boo invité Fallou. Mm-hmm. ma naan la li ma séq ak moom li ci bari du ko wax ci télé. Mm-hmm. waaye daal ku ma naaw la ma naaw ko te loolu laa bëgg a ànd ak moom mooy ànd ngor. bis buma gisul ci mom lo xane ngoré di nek na ci damay and ak mom ba mu ñak wala mu am suma ande ak momit mu yor rew mi suma ko mënta wax deug yalla na fa joggé bayiko waye waaye ko jey mu ko ci ñaan ma ko ndax fas ma ko def ben nit so mm-hmm. président Macky Sall Macky dara jëm nañ nak lu ne ci man waaye ni def ablad rek motax tax baalu ma wax naa ko dafa na lu naturel la parce que dama sentimental ko sentimental nak gannaaw ñun dañoo am aada yi yow mi yow mi li nga ma defal tey invité mu fii ci sa plateau bi. Mhm. ba ba may dem bàmmeel dama la ko war di xoole di la ko gisee di ko di ko di ko di ko dund nit ki xam ko duma la mas a toroxal duma la fekk fenn ba nee ba néewalal la wala ma wax la lu ma la wërte wala manque de respect ba àddunay tukki ndax yaa invité nga ma tey. loolu nag bu ko nit ñëpp jàppee Macky Sall def ko kon du def nii mu def Abdoulaye Wade def ko doomam toroxal ko toroxal ñu ñun waa PDS du ko def. sama sentiment la nag du ni non la wara def waye man dama sentimental ku sentimental nak non lay gisee. waaw mais euh a part lolu ben ak mom ben ben ben xarma yalla yalla xamna lolu dana def lu lumara lu ma rafetlu ma wax ko ci télé télé yu bari yu ñu may invité day def dara ma ne lu ma rafetlu kon awma ma lu ma koy bañé mais damay top xamni man gannaaw dama sentimental te dama bëgg Ablaye wad te defe naa ni non la ko wara bëgg su ko yenn yi. loolu man moo ma mer loolu la ci biir xamu ko waaye daal li ma gis mu def ko Abdoulaye moom ba at lay tukki duma ko mas a pardonné man. xanaa mu taxaw balu àq publiquement ni balu naa Abdoulaye Wade àq ñëpp dégg ko ma baalaale ko. responsable politique parti parti démocratie sénégalais nga ñuy fàttali ni membre comité directeur du parti bi nga da ngay siégé nekk membre commission euh, comité national bu vente des cartes du euh, parti démocratie sénégalais te yow lañ président Oka nous ñu lay gërëm bu baax ci teewaay bi di la bàyyi nga tàggoo ak ñi seetaan Louga TV. jërëjëf Louga TV maa ngi leen di ñaanal ngeen doon télé bi gën mag ci Sénégal. te am nañ ci yaakaar it ndax ñaan du caaxaan. Euh, gëm nañ ni ndax li ñuy ñaan ci xol lañ koy jëlee te xol lu ca jógee presque yàlla da koy te loolu laa gëm loolu laa leen di ñaanal ci barkeb Serigne Saliou digg ñaan ngeen doon télé bi gën a mag ci senegal wala ngeen bokk ci yi gën a mag te am nañ ci yaakaar euh, di ñaanalaan Mbàkke mu dem ba nekk ci kilifa yi gën a mag ci média wu Sénégal yàlla mën na ko yow nga bokk ci ña koy véhiculer te seen coloré sax bu loolu jàllee nag damay nuyu waa Louga di leen gërëm di leen ni man oxaday li ma leen di wax loolu laa gëm mooy lu ma leen fi wax gëm naa ko duma ne nak dana soti yalla mo yor soti waaye loolu la gëm te ma ngi ñaan luma wax bis bu fekkante ne dara deñ na ca nañ tok ci tele ne oxe yañu digon nangam te loolu amul mhm. loolu ma ngi koy ñaan di gërëm nak samay mbokk moy ñima bokkal ci deret ak ñima bokkal ci modu ñi nga xam ñoo bokk tukki xamna modi ñi ngi sétal danañ la wo wax ak yow euh, euh, di leen di leen ñaan ñu bëgg seen dëkk bëgg seen réew te nañu fexé ba ku fi ñëwati na nga wut partenaire bo xamni dana mëna ñëw ëndaale xam-xamam ak sa xam-xam ngeen ñëw fi bu ko defee ñu facilité leen yëf yi ngeen ubbi seen entreprise embauché gone ñu liggéey parce que suñu problème mooy suñuy doom ak suñuy sët fan la ñuy liggéey ak réew mi fan la jëm te lépp nekk ci njub yàlla nañ ko yàlla defal maa ngi gërëm ñi ma àndal nag en particulier mooy Xaadim Male ak euh, sëñ Lamine fay ak Cheikh Tidiane Diop di sama rak di sama xarit ci dëkk bi mm. fu ne mu taxaw fa di ma jàppale mm. waaye li ñu wax daal mooy lépp yal na nekk dëgg yal na nekk lu ñu mën a réaliser yal na nekk loo xam ne bu ñëwee itam kenn kenn ku ne da nga ci gis sa bopp te yàlla dogal ko muy lu jub te ànd ak barke te muy dëgg lépp loo xam ne nag naruta doon luy dëgg naru ñu caa jubal naruta nekk suñu wërsëg yàlla bu ñu coot ak lu mën a doon ak lu mu rëy rëy loolu daal ñu ngi koy ñaan di la gërëm nag yow lu bare bari te bëgg coloré gi bi ñu fas ko fu ñu toll ñu ñuy déggante. di waxante di xamante bañ a réeroo. incha allah ngi leen koy ñaanal jërëjëf euh, président. Uqa euh, Sylla la ñu dalaloon di fatali ni euh, mom responsable la nek ci parti démocratique sénégalais euh, bokk également ci comité directeur bu parti démocratique bu sénégalais bokk également ci membre comité national yi nga xam ñoom def vente des cartes ci parti démocratique sénégalais té walu lañ dalaloon ci sen télévision Louga TV diko gëreum bu baax doublement ci déplacement bi nga xam def nako waye diko gëreum ci taxaway bi nga xam am nako ci Louga TV parce que japp jàppale Louga TV ci la bokk moom euh, am na sax yu bëri yoo xam ne xëy na bëggul ñu wax ko waaye euh, bëri na yoo xamante ni ay projet la yoo xam ni ci moom la la la jógee euh, lépp rek na comme que yëfi Louga la te moom doomu Louga la daf cee def li mu ci mën moo tax président ñu ngi lay gërëm ci loolu bu baax a baax sama tur jàppal ni président Mbacke ak personnel bi yëpp ñoom am laay loo xaadim ñëpp ñu lay gërëm bu baax ci geste yooyu nga xam yaa ngi koy defal Louga TV te incha allah kanam rek la jëm gërëm leen mbokk yi doon seetaan ñi Louga TV tey Euh, ba damaa xaw a sot tuuti nag moo tax xëy na baat bi tey déggu leen ko bu baax maa ngi gërëm Ablaye Lo ci li mu doon li ma doon sotlee ci sot bi ndax gis naa des fois mu gros plan président euh, day xam ni xëy na booba euh, mi ngi noonu gërëm ko bu baax Ablaye Lo moo réalisé émission bi ànd ceeg Seydina Khadim gërëm ñëpp ñu doon teewlu may niru Cheikh sama sama sama xarit mi ngi nii toog moom it di xaritu président Oka Silla di nuyu également suñu suñu suñu suñu kilifa gëlee jógee bokk Lamine Faye nekk ba ca meeru Dakar macha allah Khadim la ñu bu baax baax a baax nuyu leen yéen téléspectateurs yi yéen di nekk réew bi ak bitim réew di seetaan Louga TV jox leen dox ne di incha allah àllarba bii di ñëw ci beneen numéro ci Louga TV seen première chaîne digitale à Louga.